asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk turam santam di leen baalu di leen ko baal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nangul ñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñu bàkkaar macha allahu tabaraka wa taala ñu ngi ak yéen ba tey ci suuratu naxli muy saar wi yàlla subhaanahu wa taala tudde yamb te waxoon naa leen bii passé ni tamit bokk na ci ay turam suuratu neam muy saaru xéewal saaru yi yàlla subhaanahu wa def cee dëxëñ ay xéewali xéewal insha allahu tabaraka wa tey jii dinañ ñëwaat ak yéen ci yeneen façon xéewal détaillé ko nag leeral ko bu ko defee ngeen xam ni yàlla moom kase moo fi nekk parce que yàlla subhaanahu wa moom si jëmmi boppam bu détaillé mbir yooyu ci téere bi kon ñun ñu toogaat di ko firi di ko leeralaat nit ñi waruñoo ñëw rek jaar ci noonu mu dem déedéet dañ koo walal reeralal ñi koy déglu su ko defee ñooña toog xalaat xam ne yàlla kon li mu ni moom kase moo fi nekk dëgg la loolu moom mooy may ñu jaamu ko loolu moom mooy tax ba boo wéetee nga jaamu yàlla subhanahu wa taala mbokk yi gis ngeen alxuraan téere bu neex la yàlla wax na ci saar wii suratul euh, naxli gii wax na ci biir di gaa yi jàng alxuraan di ko déglu di ko dunde di ko waxe foo leen fekk ñoom ñu ngi ci alxuraanul karim gaa yooyee yàlla nee na boo leen wokkoon ci suuf neen waaye yéen alxuraan jii lu ci nekk dañ naan la bànneexi neen lan la yàlla wax ci alquran wa qiila lilladina taqaw maada anzala rabbukum خلاص تونتنا قالوا خيرا الله أكبر كم بقي صار واجني مسورة النحل إن شاء الله تاني وراكم عس أجين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون teji ji ci ay yooyu la ñu taxaw inshallah allahu wa taala mbokki yalla bëgg nañu xalaat de té instant bi sax ñu ngi ci nawet bi yalla nee mo ñu waccel am ndox ladhi anzala minas samaa'i maan ma leen may am ndox mu bayiko fan minas samaa'i la wax de asaman wa ndox mi asaman lay wacce wala ci niri ci niri lay jóge waye comme ko côté bo wala yalla tudd ci alxuraan côté ba ndox may jóge moo tax fii boo nee huwa alladi anzala mina yi yàlla moo wàccee ci asamaan si am ndox tubaab bi nga xamante ne ni moom daa sob fexe na ba dem ba xam ndox mi fu muy jóge di dem di yéeg ci kaw ak yépp danaan seen téere bi juum na ñu ne ko déedéet defal ndànk téere bi juumul de asamaa fii jublu ci asamaan mais as-saxaab la ci jublu mooy niir yi nga xamante ne nii ñooy duy am ndox ba mu fees del daal di koy yebbi يلا سبحانه وتعالى أن من مارين كمان هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون يلا سبحانه وتعالى أن مارين ما يأمنه نجنتينا ويتمر كذلك أن آه، سم جرجي وا يلا سبحانه وتعالى أن مارين ما يأمنه نجنتينا ba pare dina bayi ci ndox mi ay garab wa minhu shajar ngani ma garab manila waw batay lima la waxon ci bat bële ci kaw muy assaxaab asaman ne yalla mu ngi ci jublu niir fii bi ci ay bi yalla dal di wa minhu shajarun amna day saxal ay garab yo xamanteni ni mom la jur gi di lek waye yalla garab la wax mais limu ci jublu mo ngi ci jublu am ñax shajar sii nii ñax la ci yàlla subhaanahu wa taala jublu ah nulifuha laxma ida azza shajar walxayla fi itaamiha laxma darar waykat bi nee na par yenn saa yi suñu amul lu ñu jox fas yi yàpp lañ leen di jox waaye yàpp baaxul ci fas ndeysaan waaye li nga xamante ne nii mooy maxallu shaahid bi lañ ci jublu rek moom mooy baatu shajar fii ci aaya bi firiwul garab wala même bu firé garab koku amna lanen lu ci yalla bëggat muy lan moy ñax mi nga xamanteni ni mom lañuy jox li nga xamanteni ni mom modi xar yi ak nag yi ak bëy yi ak li nga xamanteni mom modi ak giléem yi wayé dañi fihi ci ngeen di bayyi li nga xamanteni ni mom modi jurgi ñu dem daal fori mbokk yi xolal li ma leen waxon ci commencement waxtan wi newoon naa leen yàlla subhaanahu wa taala dafa bëgg ñu koy bàyyi xel ci limu bind xoolal yàlla di duggam ñu ci détail yooyu naa leen ma maa leen may am ndox ndox moo xamante ne ni jigéen ci naan contraire bi tey jii yàlla bu ko neexoon tey am ndoxam afara aytumul maa alladi tashrabuun a antum anzaltumuhu am nahnu al munziluun law nashaau jaalnaahu ujaajan allahu akbar yàlla subhanahu wa taala nee na xool leen ndox mi ngeen di naan man yàlla maa leen ko may ca suuratul waaqia nee na su ma neexoon ma xorom ko ndoxi àdduna yépp ma xorom ko ba du ngeen ko mën a naan comme ni mu def ndoxum géej yàlla subhanahu wa taala loolu moo ko def pour ñu jàngat ci xam ni moom yàlla subhanahu wa taala moom kese moom moo fi nekk waaw waaw yàlla subhanahu wa taala nee na ah ndox mi ngeen di naan su ma xëyoon yàqu ko mu daal di yàqu fan ngeen di wuteeti am ndox waaw waaw qul araaytum in asbaha maaukum xawra fa man yatikum bi ma im main yàlla subhanahu wa taala nee na su ma xëyoon ndox yi àdduna bi yépp fan ngeen di jëleeti am ndox mu ngeen di naan kon mbokk yow mi may déglu bu fekkee bëgg nga xam kan mooy yàlla subhanahu wa taala bokk na ci moyen yi ngay jaar pour xam ko xoolal ndox mi ngay naan xooloon ndox ndox mi wàcce kaw asamaan ndoxum robinet ñu ciy togg di ci fóot di ci raxas lu nekk ñu ko ci def waaye ci lañuy ñuy naan tamit kazalika yàlla subhanahu wa taala nee na moom la waaye tamit kazalika moom ci ndox mi nee na ci lay ñorale garab yi waaye tamit ci lay génnee am gàncax am ñax moo xamante ni xar yeeg bëy yeeg nag yi ak giléem yi dinañ ci lekk te buñ ci lekkee ñu amul yàpp amul soow ngeen naan lekk seen yàpp loolu lépp yàlla subhanahu wa taala nee na moom la yumbitu lakum bihi zaraa wa zaytuuna wa naxiila wa anaaba wa min kulli thamarat inna fi dalika la aayatan li qawmin yatafakkaruun allahu akbar yàlla subhanahu wa taala ci ñaareelu aaya ji nee na ndox moomu su ma ko wàccee maa leen ci saxalal ah Euh, euh, mbay mi ak zara ceeb yaa ngi dégg dugub mboq lépp ñor ak zara lépp loo xamante ni daal ñu ngi koy soxla yàlla subhanahu wa nee na moom moo ñu koy may ci ndox moom moo tax bu nawet bi ñëwee ñu war a tàllal suñu yàlla di ko ñaan mu indil ñu ndoxum jàmm bu ko defee mbay mi ñor ñu daal di am ak dund te baneen bi it maa ngi leen di bàyyiloo xel am réew bu bëggee dem li muy lekk li muy sol daf koy liggéeyal boppam waaye nga ni daal yow looy lekk France lay jóge li ngay lekk états lay jóge loo bëgg di sol bu jógewul Europe doo ko sol wallaahi azim dañuy tardé feek réew mi yittewoo wuñu am mbay duñu dem aay yii ñuy jàng fii du ko firi bu leen yaakaar yi dañoo toog ni di ko firi rek de alquran dañuy joxaali solution mais joxin wu sew lañu koy jox du la ko wax direct day wax rek daal di bàyyi su ko defee réew mi ñoo waroon a toog ubbi kaamilu alquran bi daal di xool aaya yi ndeysaan président réew mi daal di toog ak jàngkatu alquran yi ñu dégg alquran ñu xamal ko ne ko lii la yàlla subhaanahu wa taala wax kon nañu yittewoo am mbay ñu daal di génne alal ji jox ko baykat yi ñu daal di leen di dooleel ñu daal di jël mbay mi yitté woo ko ba mu ñor nga xamanteni ni ñun suñu réew kenn ñu gundu xatal ci li nga mo lu jëm ci walu lek waye état bo xamanteni ni japp na ni mom ñi jang alcorane amuñu sax am xel duñu xalaat dedet ñom ñu ngi jàng bëgg nañ ki jang alcorane daal na ca jakka ja ñom loolu lañ bëgg ki jang alcorane bu mu wax ci politique ki jang alcorane bu mu wax ci luy développer am rew ana gaynde Fatma ana Serigne Cheikh Ahmed Tidiane al Maktoum ana ñooñu nga xamante ne dañoo jàngoon alxuraan mënoon a liggéey mënoon a liggéey ana ñu tey xeex nañ leen xeex nañu leen boo xoolee au fond ci côté boobu yaa ngi dégg wallahi azim yàlla jàngal nañu ci alxuraan nu am réew di demee kanam yàlla buy wax fii am mbay di ko tudd pour bëgg ñu jullit ñu yittewoo am mbay parce que dafay jëmaleel kanam am réew kon mbokk yi loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax wa zaytuna wan naxiila wal anaab yàlla subhanahu wa taala nee na maa leen may olive maa leen may garabi tàndarma maa leen may ay raisin ah bu ko defee arab bi moo ci yëg boppam parce que genre yooyu daa mel ni ñun bariwu lañu luñ koy lekk du suñu lekk gu bari yàlla daal ni wa min kulli samarat ak lépp luy sax rek maa leen ko may maa leen may mango maa leen may madd maa leen may daqaar maa leen may tol lepp lepp ba ci dank ji ñuy lek yalla subhanahu wa taala neena man la maa leen ko may wa min kulli samara la wax lepp luy sax rek newa konkorong lépp subhanahu wa taala neena mom la bu ko defé ñun africain nak dañuy xép suñu nos yaa nga dégg dañ ko xép bu ko defé duñu dem waye gis nga yi ñu yalla may ni bu ñu ko jëloon yittewoo ko wut ci ngan di tool di bay diko jël diko jaay bitim rew di lañ ko jox forcé leen ko comme ñoom nit ñuy forcé yi ñu am te ñun amuñu ko wallahi àdduna bi day jëm kanam ba pare ak dimbalante lay doon suñu biir waaye ñun complexe nañ fi ne nii ma am tool boo xamante ne ne dànq laay bay bu ko bëggoon a jël pour yóbbu ko bitim réew état du ma jàppale dañ may reetaan wallaay ndeysaan te fekk ni yow mën naa am am na lu ca yàlla def loo xamante ne nii mën naa faj feebar mbokk yi xoolal li moo li ci yàlla def lépp yooyu yëpp tey jii yàlla yàlla la subhanahu wa taala garab la day faj mais déedéet ñun dañoo toog rek oustaz day ñëw toog commencé firi aaye ñiy fitta su jeex na déedéet du loolu de yàlla dafa bëgg ñu yittewoo ci côté boobu pour ñu gën a développer suñu réew parce que adduna bi dañ ko war a dundal comme ni ñu war a liggéey li nga xamante ni moom moo di suñu àllaaxira wa min kulli samaraat xoolal mbokk yi fi may jeexale mooy fi yàlla jeexale yàlla xoolal li mu tëje aaye bi inna fi dhalika la aayatan li qawmin yatafakkaruun yàlla subhaanahu wa taala nee ma fi wax nii lépp gaa yi nangoo toog di xalaat kase ñoo koy accepté allahu akbar inna fi dhalika la aayatan li qawmin yatafakkaruun yàlla subhaanahu wa taala nee gaa yi nga xamante ne nii ñoom dañuy toog di xalaat ñoom kase ñooy accepté li ma fi wax inna fi dalika la ayatin li qawmi yatafakkarun gaa yi toog xalaat dinañ xam ni lii ma leen wax dëgg la nga tëju sëb néeg xalaat ni wallahi yàlla rek moo fi nekk ndox mii mu wàcce ci suuf si mais benn suuf mel menn ndox lii sax saf suukar lee sax saf kaani lële sax lewet te ñun ñépp bokk benn suuf bu ñu saxee ndox mi wàcc lan moo ko xar ci biir suuf ba mu génn yàlla la subhaanahu wa taala bu ko defee loolu moo lay may ak ngëm yàlla boo ko defee nga bokk ci gaa yi keral gaa yi nga xamante ne ni yàlla dina leen keral yowmal qiyaama sabaatun yudilluhum allah fi dilli yowma la dilla illa dillu boo xoolee lan la ca wax ci mujjantal ba wa rajulun dakara allaha xaaliyan fa faadat aynaa yàlla neen bokk na ci ñi ñuy keral yawmal qiyaam ñi nga xamante ni dañuy toog di xalaat ci li yàlla bind ba jooy xam ne yàlla subhanahu wa taala kase moom moo fi nekk yàlla nee na nag loolu boo ko bëggee xam xool leen ci li ma bind moo tax mu jeexale aaya bi inna fi dalika la aayatan li qawmin yatafakkarun mbokk yi yal nañ yàlla subhanahu wa taala defal dégg ak topp jéggal ñu suñu bàkkaar jéggal ñu suñu rëcc rëcc jeexagul de incha allahu rabbi si daje bii di ñëw dinañ ñëwaat ak yéen ci yeneen façon xéewal yoo xamante ne nii yàlla nee na moo ñu ko may ñu war a toog xalaat ci yàlla nañ yàlla defal dégg ak topp lu fi jum nañ ko sant yàlla nu fi dëng ngeen jégal ñu ko di jëfal ni ñu àndaloon ci liggéey bi balaa la maison du Coran wa jazakumullahu xayran wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu góorgóorlu leen ci alquraan def leen ko lekk def ko naan ma nga bawoo ca asamaan jibril mu mi andi na leen jaral sonn bu wér na ngeen